mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen a ngi fii ci Kajoor Actu yéen ñu taamu di ci taataan ay xibaar mais tamit euh, di fekkee suñu émission découverte tey dañoo am invité boo xamante si ni bu spécial la Njaxate xam nañ ko Tiwaawan xam nañ ko Thiès xam nañ ko kon xanaa kon mooy Kajoor bonsoir Pape Massar Djité. waaw ah, bonsoir Samba Ndoye. ñu ngi lay ziar bu baax baax. Wa ñu ngi lay délo ziar. wax na Pape Massar Djité mais Pape yow yaay kan. waaw man maay Pape Massar Djité ben ben jeune la un footballeur Maay maay judo ngi juddoo Njaxate fa laa dëkk fa laa màggee fa lépp après par la suite dama toxoti waawon. mais man maay maay Thiès quoi Thiès la ëpp lu ma nekk. kon doomu kajoor ji ma doon wax mo lolo koy firndeel. waaw doomu kajoor la <laughs> donc kayor la fi la judo fi laa defee lépp hein. sama lepp fi le kayor la quoi. Pape Massar sa profession football la lan mo la xir ba nga dugg ba ngay nek di football wala nga taamu métier football. wa football passion la won au début parce que da nga nan da nga nan jouer noonu avec ak ay footballeurs yu affaire yoy footballu mbedd mais dina dem ba ben moment nak nga nga gën ci concentré wu parce que dama doon ko allier aussi ak école bi mais da ngay dem benn moment il faut que benn bi nekk dominant ci la jël football bi après liggéey lay doon quoi au-delà de la passion. au-delà de la passion wax nga ko kon da nga choisir entre football ak dem jàngi. waaw waaw léegi mhm. dama def sama choix parce que c'était pas facile tamit parce que dama doon boole ñaar yëpp di jàng di defaale sport bi mais dina dem benn moment il faut que nga xaw a négliger benn bi après par la suite ci la ni il faut ma décidé wu ci la décidé suivre football bi parce que mom la ci la gënon a gis sama bopp. nga de suivre football bi fan nga tambalé football yow ban équipe. waaw man maa ngi commencé football si centre cœur Foot bu bu Tiwaawan fofu la défé sama junior ben année après ci la ñëw fi Thiès def aussi ben année junior au CNEPS après ci laa ci lañ ma surclassé senior si lañ la surclassé senior. Ah. mais tey dis c'est nañu yow CNEPS excellence nga nekk foofu ngay joué lan mo wara nan nga def ba exi fofu tay eh, ci première division Sénégal. waaw CNEPS man naa ni ma ngi fii doon depuis biñu nekké en national après ñuy gravité les échelons di dem di dem ba ba ba ñëw ci élite Sénégal bi c'était pas facile parce que championnat Sénégal surtout football Sénégal mom dafa dafa metti ak surtout long voyage yi fu ne ngay dem équipe fu mu nekk da nga fekk mais Ligue 1 bi peut-être moo moo gën a stable quoi parce que am na soriwul bariwul te déplacement yi du metti par rapport ak yeneen yeneen niveau championnat yi. effectivement jafe-jafe yi yi championnat Sénégal bi di dund dinañ ci egsi xam naa suñu mhm. biir émission lay nekk mais avant boobu Sénégal excellence ñu jékki rek ñëw Ligue Ligue 1 jaar na Ligue 2 waaw jaar na Ligue 2 parce que mon maa ngi club national parce que Ligue 2 mais année boobu nekkuma fi mais bi mu wàccaatee ba nekk national ci laay doog di intégrer équipe première bi ñu deux années en national mu metti trop parce que à chaque fois da ngay dem ba espérer pour la montée mais quelques points mooy tax après nga nga maintenir mais ñuy di ba ñëw ci Ligue 2 parce que yoon bi mom manan naan dafa leeroon bi ñew Ligue 2 bi parce que écart de point aussi c'était pas manam bari woon na bari woon na trop ba manan naan man nañu wax ni la chemin le chemin était tracé quoi motax voilà motax tax euh, ngeen ñëw Ligue 1 mais Ligue 2 bi gis nañ ni bi ngeen fay nek def ngeen parcours bu extraordinaire ba sax euh, jàmbaar seen dernière journée euh, mom ngeen dajal. mu nekkoon match bu am solo. bu ah. ñaari académiciens nan nga dundee boobu match. waaw suñu match contre jàmbaar mën naa ne toujours derby lay doon parce que du yomb match académicien la. Mhm. te ku ne aussi day bëgg a imposer lim jàng. du du yomb day am rythme surtout dafa dafa day doon équipe yoo xamante ni dañoo rajeuni dafa bëri ay jeunes. te mooy ëpp rythme gars dañuy bouger tout le temps day métti et physiquement. te année Ligue 2 bi aussi ñu ak jàmbaar ñoo yéeg te aussi dañ doon xëccoo la première place. Mhm. ci pour la montée ñu dem dëkkam ale bi mu gagné ñu euh, ñu am benn défaite bu amer foofu. Mm-hmm. mais après ñu resserrer les trousses ñu ne carrément nag le retour bi moom il faut que ñu wane beneen visage parce que comme bañ nañ benn lex bi moom retour moom nañ wane beneen beneen beneen kanam. Mm-hmm. pour mën a am victoire. waaw retour bi ngeen wane beneen kanam ba tax ngeen am victoire sax moo leen indi Ligue 2. mais jour boobu bi ngeen xamee ni Pama Sarr jiite da doon rêvé nekk joueur. Mhm. tey mu dem ba nga xamanteni ni war na le yéeg Ligue 1 championnat professionnel bu Sénégal. Mhm. lan nga yëg jour boobu bi ngeen gagné. a ah, jour boobu bi ñu gagné <laughs> sentiment de de fierté quoi mhm. sentiment de fierté vraiment kontaanoon na trop mais imaginer que ni ñun yéeg nañ Ligue 1 lolu fierté la quoi c'était une première. te am surtout ak ak euh, suñ suñ parcours biñ def don don gravité taxawaaluñ fenn mën naa parce que dañ doon enchaîner montée yi. Mhm. ñëw ba Ligue 1 c'était une fierté. benen découverte la won tamit après man dama doon sentir sama bop ni ah vraiment y a d'autres responsabilités qui se présentent. Mhm. il faut que ñu ñu am benen attitude bu ñu wane parce que élitu Sénégal la moo ëpp visibilité te il faut que ñu am ben ben taxaway bu ñu wane foofu ci niveau bi. Mhm. pour pour se faire respecter tamit. baña baña bañ ridicule. effectivement mais yow xëy xëy rek euh, ñëw Ligue 2 Ligue 1. wala Ligue 2 bay Ligue 1 am ci match yoo xam ne si fa nga jaar yang koy tudd sànq mooy le foot de la rue. ci côté nawetaan ñëwuñu ci tuuti. waaw nawetaan mën naa ni nawetaan moom Sénégal moom nawetaan. Mhm. moom ñoo ànd quoi parce que jàpp naa ni joueur bu fi rek bépp joueur local rek je pense que jaar nga ci. te vraiment maam fi fi mu Senegal. Sénégal yi sori na trop ba booy xool sax mu ëpp engouement que match championnat yi. Hmm. gars yi ni ñu mobiliser woo nawetaan. wute na ak ak euh, championnat yi te dafa neex ambiance la ak euh, vacances yi surtout moy doon occupation principale yi gars yi dañ koy dañ koy soxla souvent di mën am occupation une ñu mm-hmm. mais neex na jarna ci joué na ci ci